asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne Sané Bégué ñu ngi lay nuyu di laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk la ci jàmm te fekk ci jàmm mbooloo mi nekk ci biir mbooloo mi waaw xam nga inondation moom xamul daara ak jàkka xamul marché ak pinc moom fu ko fu fa lay taa ah xam naa ne ñun ñun sax dañoo war a sant yàlla ndax ñun suñu inondation di yenu ay oto inondation bi xew ma diina ren ci taw booy fa mujj ci ginnaaw ak bi xewoon màkka da doon yenu ay oto ba fa yàlla ji taw taw bi daa bari bay yenu ay oto di di leen ci xàll ba te Sénégal taw yéenoogu fi oto te foofu am na taw yoo xam ne day yenu oto yi sànni jilin ca xurye boo demee mu mel ni mbëbë sim oto mu ñu fa def te oto yi bees beq lay doon kat te loolu eggaguñ ca nun ñaareel ba nun fi ndaw fii nii ndox la fi taw waaye ñoom bi leen inondation bi dikkalee yàlla gis doon taw ay ay ay buli yu toll ni ay bali teng si seen oto yi amuloon garage ne ci biti yëpp glace gi dafa rajaxe seen parabrise yi toj lépp tanks yooyu ñuy tenise daal ponkali tanks yooyu daal ah, nga xam ne ñuy tenise moom la ñuy dóorantee glace yi toll noonu la yàlla ci doon taw jamono jooje ci seen biir jóge ci niir ya xam nga ne bal glace gu toll ni tanks yi jëri ci niir ya moom bu la dalee ci ndaal bopp sax boo tulee nga nga xëm inondation bu ànd ak yàq gu méttee méttee méttee moo fa amoon waaye nun yàlla ngi nuy suturaal ba taw rek lay def di am inondation waaye eggagul ci nag taw ay doji glace yu toj ay oto mbir la moo xam ne nag àddina gépp la daj inondation bi fépp la daj boo demee Philippines da nga naan déedéet boo demee fi ñuy wax tey euh, Bangladesh nga ne xanaa fii rekk la euh, moom daal inondation bi daal atum ren moom daa daj àddina kapp kapp kapp kapp kapp te nun ab taw rek moo ñu inondé waaye am na ci dëkk yoo xam ne taw da leen di inondé ak dex guy màbb di leen di lekk seeni seeni kër te loolu yàlla ak ci musal li ñuy fàttali rek mooy dëkk ab dëkk fu ma nee dëkk lañ koy def mag ñi dañoo séddale woon àll bi defoon nañ gol def ngoree def jàtti fu ñuy sàmme def bay bayukaay tool yi ñuy bayee def fu ñuy dëkk def déeg bu ñuy naanee xam nga man Tuuba dégg naa fu ñu naan déeg daqaar wala déeg daqaar di ko fa dëkk bu soobee yàlla bu ndox baree di ko fa tuub ndax déeg daqaar moom déeg la bu noon ci ci ak daqaar xam nga nag bu bu dëkk dee di dem ci biir àll bi ba egg foo xam ne ay déeg fa nekk tam ah noonu la ngay def rek da dañ koy natt gaal di gaal gi am na fi dëkk am na dégg bu ñuy wax dung-dung ak bu muy bu ñuy wax bamba diyaali bamba diyaali xam nga bamba diyaa ak bu ñuy wax dung-dung ñaari déeg yooyu ci déeg yi gën a mag ci Sénégal la bokk mbéy mi ñuy béy di ko jege tax na joor gi di ca dem ba xaw koo sëkk ba mu maasaloo waaye terewul nag day taa natt nañ ko ay kër ba am ñu tabax bis bu ndox baree gàndigaal moom yàlla day bëccëg waaye bu dee guddi moom ñooña bu ñu yéexee lañuy fekk ñu doon ay niiw ndox ndox mu bari noonu la dëkk yëpp mel boo demee Tuubaa itam am na foo xam ne ay ay xur la woon te ba ñuy natt ba egg fa sóoraaliw ñu dañoo natt rek continuer dem ñaareel bi mboolem li di néeg yu ñu xadd ci Tuubaa boo leen xëddi woon di di néeg yëpp ba mu des penc ma doo nga la ko wër bu yàlla ji tey du am waaye dangay xam ne foo ba gis fa ab ab terrasse la fa waroon a dal ci ndox day biri ngu topp tali ba dem fa xurwane li nga maanaam ndox mi lu bari ni ngeen ko fooge ci taw bi li koy tax a bari mooy li terrasse yi ak mbeste ni baraag yi di jallax ci am ndox di ko jóor ci tëli bi mu continuer wéy mooy dem fa fa taafa maanaam fa xuut fa dëkk bu la gën a rëy moom te assainissement ba teguwul ci yoon bu ndox baree dañuy inondation waaye eh buñ dee inondé itam nag ñe ca xurwaay inondé ñe ca moom lu fa taw rek da koy yekk ca xurwa xanaa ñu góorgóorlu rek jàppale waa Touba ak yeneen dëkk yi gouvernement bi def ci li man ku man loo man nga def ko ci waaye nag man yaakaar naa ne ba njuumte di am sax joomaay fay moom booba xam naa ne bu judd gëwuma ko de ba ñuy dagg rek di teg di sampi mborno di teg di dagg ko rek di teg di sampi mborno di teg boole tund yëg xur yéeg déeg yéeg deq yeeg fépp di ko dagg te suuraale wuñu ay yooni ndox yoo xam ne mën naa jalax ndox mi génn ko ni ko tubaab yi defee ah booba la njuumte la amoon waaye bi laata feeñ nag dañoo dem ba terrasse yi taxaw étage yi taxaw Eh, ñu def ay téeg yoo xam ne moo tiim néegi bu yàlla ji tawee téegi ci lax ndox mi jaarale ko ci tali bi mu wéy uti xurwa boobu la door a xam ne ah, aw dëkkin dafa am ab dëkk dañuy jël ay gradeur ca bañ ko nattagul ñu maasale ko jël xur yee ko ca jël tund yee ko ca xur yee ko ba mu niwate ñu gasal ko ay ay ay nu mu tuddati ay ay rigoli ndox yoo xam ne bu yàlla jotee fa la ndox may jaar tali mbedd ya tabax rigol ya xëcc courant ba ba noppi te kenn tabaxagu fa kenn dëkkagu fa su boobaa ku ñëw da ngay dëkk rek ne noonu bu yàlla am na fu ndox muy jaar waaye ginnaaw bala ñoo gas ay bala def ay tali nit ñi dañuy dëkk ba noppi ba noppi ñu door def ay tali bala ñoo def ay rigol inondation dafa dafa am ba noppi ah daanaka nag ay ñam ñabal rek ah, ay ñam ñabal rek de waaye liggéey bu yoon bu yoon moom duñ ko def dañoo mooy ca al abniyatu tahtiya waa fa lañ mooye yoon wi yan yàlla tanu ci tanu ki sellal asalaamualeykum wa taala wa barakatuhu Amadou Gueye yow loo bëggoon xanaa danga ku mel ni yonti yàlla Moussa boog mu ñëw ak yet wi nga xam ne lu mu ko sant mu def ko ñu daal leen di tabaxal ay building bala no wate ah yow tant yooyu ngay ngay ngay xeeb est-ce que ak neen ah man de gis Corée <coughs> di Sud de gis naa defar ay néeg yoo xam ne dañ koy importer eh, nga xam ne bu njëkkee samp ko rek néeg ak duus ak yëpp lay doon loolu de xam naa ko Corée du Sud aselem amoo yi ci Dakar am na ci yoo xam ne démontable la waaye Amadou loolu ba lañ ko fee ba lañ ko fee defar moo moo gas pax tabax tabax miir benn la de kii dañ ne indi na fukki camion hydrocureur indi na juróom fukki pomp indi na benn moto pompe boo xam ne mille mètres cube lay génne te mètre cube bu nekk mi ngi nekk mille mètres indi na cent vingt euh, mille deux cent mat la indi na quinze tentes yoo xam ne tente bu ci nekk am na mën naa def téeméeri nit téeméeri place ah Amadou Gueye yow doo yàlla tawoo ndox mi yàlla tawam ndoxam mu am inondation ak lii nga wax ak lii ñu bindi fii yëpp nga xam ne tay naa koo liir ba mu jeex nga ne kon wate législatif yi bu dikkee gars yi dañuy contre maa ngi lay laaj lan lañu waroon a def maanaam yi lan lañu waroon a def pour wote législatif yi bu dikkee gars yi wote leen lan lañu waroon a def ah, dafa am yoo xam ne moom daanaka yàq yàq yàq sa wax la rek législatif yi moom ah bu neexee sénégalais yi ñu wateel gouvernement bu bees bi bu leen neexee ñu bañ koo wateel libre nañ ci loolu ndax ci réewum démocratie lañ nekk waaye bi ñu feree juróom benn fukki nit nangam dey ñu bëgg ko atte ay député taxaw wate daa di ne defal nañu leen mba yàlla nga xam ne amnistie nañ leen kenn du leen trop dara te feek ñooñe ko defoon amnistie amnistie bi ñu ko wate woon ñoo ngi ëpp doole ca place ba ñu nekk amnistie bi moo fay continuer ndax saa ko bëggee daj ñu dindi ñu ñu lànk léegi nag Sénégalais yi eh, balbanki seen i ka su ngeen bëggee ñu teg réew mi ci yoon ginaaw am na fi ay mbir yu ñu war a atte te mbir yooyu ay député yi wate contre ko dee ko atte ay député wate ànd ca ñu atte ko bu ngeen bëggee ñu bañ koo atte jàppale leen ñi kontra atte bi rek su ko defee ate bi niil gaa yi gaa yi seen seen seen seen deret naax saay su fekkee ni nag bëgg ngeen réew ñu teg ko ci yoon te xam ngeen ne loi d'amnistie ab ab ab ab gouvernement mënu ko defal boppam lu dul ci assemblée la koy jaar wate leen ñi nga xam ne buñ amee majorité ci assemblée nationale ba Eh, loi d'amnistie bi ñu dajji ko teg réew mi ci yoon kenn ku ne la nga nekkoon eh, ci ak njubadi ñu topp la ko eh, yooyu yar daal moo fi mën a am dooleel gouvernement bi assemblée mu mën a pratiquer li mu diggee ñun ñu niiwal ko doole gars yi contre ko ñu xam ne ñoo jël suñu sémmiñ ñu gor suñu yel loolu kese la léegi nag bal banque seen i camp man de li ma leen di diggal mooy man daal bépp assemblée nationale boo xam ne ay député nekk na fa ci Sénégal ñu rey fii ay mbooloo dul jeex député yooyu taxaw wate ne seen deret niil na député yooyu ñoom bu ñu yaakaaratee ci man sama carte bu soobee yàlla duñ ko am te bépp sénégalais boo xam ne yëkkati nga sa carte wi nga di ko nga di ko sànnil député boo xam ne bii eh, day wate niilal dereti sénégalais ji ñu rey te ñu ko rey tey ko moom yow sénégalais boobu dañ laa war a sànni géej ndax bokkatoo ci réew mi ba boo ci bokkee ci jëmmit bokkatoo ci ci xol ndax ku am xolu dëkk ci Sénégal ñi tiire gone sénégalais yi ñuy dee ci sa kanam ci dara luwaa war ko atte luwaa boobu ay nit sànni kayit ba ne luwaa booba niil na ah dama ne ña niilal luwaa booba ku ko mënta jëflanteeg ñoom ci say doole it nga mën ko jëflanteeg ñoom ci boo bëggateew carte du ma la ko jox ah, réew moo xam ne démocratie ba tege na ci yoon kenn du jël pouvoiru exécutif jox ko benn parti retourné jël pouvoir législatif jox ko ndax loolu day tax mu nekk ab dictature waaye day fekk réew ma ñoom ñu ñu ñu fund gi ñu ñor ñu xam lan mooy état day fekk réew ma député yañ fay fal doon ay député yoo xam ne état ba euh, population ba lañ fa présenté bu boobaa ñu xam la nga xam ne moo di intérêt réew ma di ko doxal su boobaa opposition ba mën naa ëpp doole ca assemblée nationale ndax bu fa ëppee doole dina défendre bëgg-bëggi doom adama yi waaye député yoo xam ne ay député ndey dikkale ñëw ay député tontine ak ay député neex ceeb ak ay député restaurant euh, restaurant woman xam nga restaurant woman lañ ko xam restaurant maan ay député bàjjeni ko ay ñoo xam ne xamuñu dara ci li xam ne moo leen moo tax ñu fal leen liñ leen fale rek mooy tàccu leen ma yuuxu saay noon après ma sant ma keneen ki wax ngeen saaga ndeyam sarxa sarxa ko bu mu wax dara yooyu député moom dëgg-dëgg mën nañ ñoo abal ca assemblée ndax amuñu fa benn njëriñ député tàccu ak sarxolle ak yuuxu nit ak saboté ko saaga ko ak ku génn nga dóor ko moom yooyu député moom <laughs> député yoo xam ne nee nañ dañuy piirir sénégalais yi ah xam naa leen fii xam naa ne sénégalais yi dix dix huit millions de ku leen piirir da lekk ba dee naka <laughs> ah, xaw ma foo koy denc dañuy semb te sénégalais yi comme ay soble ak dañ leen di semb comme ay pomme de terre ak i pataas ak yi liñ fi wax du jeex de lépp la ñëpp ñu ko jàpp dara bàyyi fàttewuñ ko ci waaw député bu ne day semb sénégalais yi comme ay soble di leen fiirir kay kooku kay moom alhamdulilah bil alamina xam naa ne Seck lay sant mbaa Jaw mais mën nañoo abal rek mën nañoo ñaanal daal waaw mën nañoo ñaanal daal te dem toog yi waaw ñi doon saaga ndey fii ci biir assemblée bi kay moom ah yooyu ñooñu moom nañ leen nañ leen nañ leen nañ ñu ñaanal rek te dem toog yi bu fekkonte ni xam nañu àqi député ji nga xam ne moo nekk ci mbaggam ci digganteem ak population ba ko fal mën nañoo may doole li nga xam ne moo di opposition pour mu mën a blanchir réew mi waaye opposition yi yi fi nekk nii eh, ñu gis leen nii ni ñuy mën a soppeekoo ba mel ni opposition ñoom Ousmane Sonko moo may jaaxal ndax ñoom opposition Ousmane Sonko ñoom ak ñoom Barthélémy sax ak ñoom kii nu ñu koy waxeeti eh, waa ji eh, Guy Marius Sagna ñoom ñoom dañoo taxawoon di défendre population bi seen i intérêt mais ñii ñoom dañoo taxawoon doon ay dictature yoo xam ne ku dee yaa xam ku dund yaa xam seen yoon nekku ci. ñuy rey nit ñi ci mbedd yi ba noppi gaa yi taxaw ñoom fa ñu yàqe seen way rek mooy fañ taxawee ne lépp luñ fi defoon ci ak njubadi nañ ko niilal booba lañ war a nag ak niilal googa niil ba faaw man duma politicien faruma kenn mais bépp député boo xam ne bii dañuy rey lu ëpp soixante nangam personne ci sam réew nga taxaw wate ne niilal naa ko nañ perte seen deret ak seen bakkan seeni mbokk nañ si gil ndiggaale sax duñ ko dégg si gil ndiggaale waxuma ay dommages intérêts waaye gouvernement bi lim leen sigil diggaay sax amuñu ko ma ne ñoo ma ne sénégalais yi leen waxante dëgg bu bis ba jotee wallaahi ku war ñu xam ne jëroo xam billaahi bu bis ba jotee ku war jar nañu takk la ba nga dëgër ba nga dëgër dem ba biir géej sànni la ndax képp kuy bëgg a daganal ñu rey juróom benn fukki doomi senegal rey maa tey ci mbedd yi di leen diri ni ay ginaar nga am xolub taxaw ne loola bu ko kenn atte bu ko kenn lijjanti nañ ko bàyyi mu niil ma ne kooku képp koo xam ne yaa ngi xalaat ne nañ ko jàppale yow jëroo laaj pexe man di sama waay la ma waxoon ca ba ñuy waxte ca législative ca présidentielle rek man daal ñii fi nekkoon di rey nit ñi ba noppi ne taxaw ne dañuy niilal seen deret duma leen wateel man te képp ku leen di wateel ànduma ci te képp koo xam ne su ma la waxoon nga dégg dama lay wax ne bu leen wateel ndax man li ñu rey ca ay nit fii Sénégal ma tekki sama bët man ab sénégalais laa du ma ivoirien du ma burkinabé ab sénégalais laa lépp lu ñu def ab sénégalais dama ko yëg ci sama bopp bu dee lu neex danaa ci sant yàlla bu dee lu naqari ma mer ci te mboolem ji nga xam ne dóor nañ leen bal fii ñu dee ci Sénégal buñ dellu si waatoon gouvernement bi leen bi leen rey duñ mas a wateel député gouvernement boobu nañ leen setantal bu baax te xalaat te xam ne inal fadla bi yadillah yuuti man yashaa intérêt àddina jërul lenn li jërul lenn li jëlul lenn bi